Euh, Momar Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay. yow ngay ngay vice président bu association des consommateurs sénégalais muy ASCOSEN tey ñu wax ci yokkute gi nga xam ni moom moo mujj muy suukar gi bu yàggul lañ fi dégg mburu gi euh, waxatuma laak yeneen yi nga xam ne ci marché bi boo ko laalee tey maara détail yi euh, tey yokkute yooyu lee monsieur Cissé nan nga ko mën a décrypter. yokkute yi mooy que arrêté ministre bi moo indi suukar si ñu yokk indi inflation mhm. parce que euh, fi mu waroon a jaar non seulement jaaru fa mais inflation dafa di xam ne day wàll yeneen produit mhm. parce que même kiy jaay som bi danaan suukar si dafa cher kon man suma som bi dafay cer mhm. kiy jaay carotte ne comme suukar bi may jënd dafa cher kon man sama carotte dama ko yokk moo tax inflation wala prix bu yokk baaxul fenn. Mhm. gis suukar si yokk na en poudre gis nañ ne diwlin bi yokk na gis na aussi mburu mi yokk na mais yokkute yëpp état dafa war a xool ne moom moo war protéger le consommateur. moo tax bi ñu waxtaanee en visioconférence keroog alxames mhm. joxe nañ ay proposition diwlin état mu ngi sept mu ngi mu ngi ci jël pour cent mhm. am na benn droit de taxe bu mu jël loolu yëpp na ko bàyyi bu ko defee prix nga xam ne moom la ko importateur bi ci jox di jëndee euh, bu boobaa bu ci amee marge bénéficiaire am euh, danañ ko jëndee lu moins cher mhm. euh, diñ ma laaj nag ndax ne ma mais diwlin bi ñuy bayee fii mais diwlin bi ñuy bayee fii kenn mënu ko jënd parce que dafa cher loolu moom mm. doy na waax di li ñuy defar fii ñun mënuñu koo jëfandikoo xanaa di jëliwaat euh, beneen diwlin gi ñuy jaay di ci yokk ay taxes. ca départ ba lañ faussé parce que matière première bi nga xam ne mooy arachide bi dañu ko jëndee lu cher. Mm. surtout nag lañ nga xam ne arachide bi amul qualité densité bi par exemple boo doon jëlee ñetti kilos fi ne yaa ngi obligé def ñeenti kilo pour mën a am un boo ko jëndee trois cent franc doo ko nal ko def ci nga ko a def kon doo ko mën a jaay donc loolu moom lu ñu war a saafara la pour parce que arachide daf di huile de qualité mhm. bon boo boo ñëwee ci ceeb bi problème bu rëy nag war nañ ko souligner mhm. am na ñoo xam ne ñoom presque quatre vingt dix pour cent ceeb bi ñuy lekk ñoo koy indi Sénégal mhm. ñooñu ñooñu duñu duñu duñu duñu caaxaan ci frais yi nga xam ne moom la ñu war a fay mm-hmm. mais am na si ñoo xam ne nag foog ñu indi leen ci mooy ñi nga xam ne occasionnellement yuy ñëwee bu ko defee la ñuy fay du bari mm-hmm. wolof di wax la ñuy njaaba njale daal dem bu ko defee importateur bi nga xam ne moom quatre-vingt-dix pour cent moo koy indi boobaa day perte mm-hmm. te bu dematul ñun ñoo koy yëg te buñ ci jogul da dem ba ceeb dootul amati fi Sénégal buñ jaay. Mhm. loolu mooy alerter les autorités ñu xoolaat secteur boobu xool diggante douane xool diggante frais yi nga xam ne moom lañuy ñuy mhm. ndax am na ay préalable balaa yokkute yii di am euh, monsieur Cissé. yokk boo gis waxtaanee lañ daan def. mooy bi yoon amul. bi bi nga xam ne mooy sucre en bi ministre bi. Euh, waxtaanu ci ak conseil national de la consommation mm-hmm. waxtaanu fekk association de consommateurs yi mm-hmm. te bu dee non seulement bi mu waxtaan technicien bi dafa ñëw waxtaan ak association de consommateurs yi mm-hmm. soog ko yóbbu conseil national de la consommation bu dee yokkute bi amoon ci suukar importé bi te ñu ñëw ñu waxtaanee bu dee yokkute bi amoon ci diwlin bi dafa ñëw ñu waxtaane ko mhm. loolu yëpp nag recherche consensuelle moo war a am ci yokkute produit bu nekk parce que conseil national de la consommation yow journaliste boobu yëpp tam ci bokk mhm. mais nag bi mu toogee moom kenn kese daal yokk moo tax fi mu toll nii ñu woote waat waxtaan te ñu ci waxtaan alxames ba le door nañ ko. Mhm. pour ñu jéem xoolaat suukar en poudre bi comme localement lañ ko produit. Mhm. vingt cinq francs yooyu ñu daal di ko ci pindi ñu di ko jëndee toujours cinq cent six cent francs mhm. à ndax euh, compagnie sucrière dafa am ay données yu mu joxe ministère. mais données yooyu mënoo yem ci yow rek. li ñuy waxtaanee ñu validé que yokkoon nañ importation vingt cinq francs mm-hmm. moo tax ñun suñu proposition mooy na jël vingt cinq francs yooyu nga xam ne bëgg woon jël parce que moom nee na jël ko woon ci importation bi mu daal di ko jël teg ko ci marché bu ko defee benn prix euh, du consommateur bi du ko jëndee lu cher parce que six lay nekk ba léegi mm-hmm. mooy suñu proposition te chef de l'État aussi sens boobu la joxe instruction ne nañu réviser à la baisse prix waaye dafa mel ni euh, produit importé yi euh, naam mën naa yokk ndax du du du du si ñun bu mbir yokkee bitim réew ak taxi yeeg yooyu euh, mën naa am répercussion waaye tey am na yi nga xam ne fii dañ ko fi nemmeeku muy ndawal gi yeneen yi ni mel meew ak yépp a ngi fii di yokk maanaam marché bi daal lépp a yokk loolu tamit nan lañ ko mën a expliquer <laughs> fii ci Sénégal mooy la liberté des prix cependant am na yoo xam ne dañ ko encadré hmm. moo tax éliminer meew mi ak yàpp wi hmm. nañ ko jéem a encadré encadré ko soit euh, fixé ko d'autorité comme ni ma ko waxee ci français trois mois renouvelable une seule fois ba hmm. tension bi jàll wala ñu homologué ko léegi problème viande bi ñun posé woon nañ ko problème au niveau du ministère parce que dafa am ay taxes yoo xam ne comme yàpp yi buy ñëw Ndakaaru presque am man lay jógee ko wala feneen lay jógee ko daal di ñëw. Mm-hmm. nag wi am na ñu nekk fora yoo xam ne te ñoom ñoo koy tegal seen bopp ñu ne nag nañu waxtaan ci taxes yooyu xam ne ñu ngi koy teg ci nag bi te consommateur bi di ko fay. Mm. c'est des taxes yoo xam ne li ko tubaab doo waxee intérêt ministère bi jëloon na engagement ne dina ci waxtaan ak ministère de l'élevage meew nañu xool ne bitim réew lay jógee par exemple nañu mhm. xool la structure du prix de revient bu importateur bi ñu xool lan la ci état di am mu daal di nu muy wàññee loolu marge bi nga xam ne moom la aussi importateur bi am bu dee fukk la ñu jëm ko jox juróom mhm. nga xam ne moment bii nga xam ne moom lañ nekk moment bi passé bu ko defee muy participation à l'effort de guerre mm-hmm. tey panier de la ménagère bëri na jafe-jafe lii di tabax bi tabax bi bëri na jafe-jafe euh, li nga xam ne mooy location cher na ndox cher na électricité cher na moom fan la consommateur bi di jëm monsieur euh, Cissé consommateur bi bu fekkee ne euh, ministre bi ki état bële ko ci li nga xam ne moom lay utiliser loolu nga wax muy fer muy ciment muy location muy jéem a bu dee location bi dafay augmenter l'offre ba defee nit ñi mooy mooy initiative bi cent mille logements yi mhm. mais waxoon nañ fi ne nañu def agence immobilière wala l'observatoire des loyers mais su ko anniversaire président de la république na engagement boobu ne décembre nañ ko def ci table bi décembre def nañ ko ci table bi lu muy xaar ba léegi pour mettre en place les recommandations yoo xam ne bu ko defoon tey bépp location bu dee offre bi da ngay dem ci agence boo xam ne ah, euh, ak moom la ñu agréé yow locataire bi ak bailleur bu ko defee ñu encadré léegi suñu économie par exemple achat yu bëri bitim mais loolu war nañ ci jàng def promotion des la ko li nga xam ne moom la ñuy bayee fii ñu lekk ko loolu nag dafa am ñaari jàngat jàngat ci population bi ñu changé na ñuy lekkee habitude yi ñu lekkee nangoo lekk ci nga xam ne moom lañ si bayee bu dee ceeb euh, ceebu wàllo bi dara gënu ko point de vue qualité bu dee cere gi kenn gënu ko c'est nutritif et bu boobaa kon état moo war a changer politique am mais naturellement hmm. mais na dooleel aussi ministère di commerce ci promotion des produits locaux parce que problème bi mooy am na consommateur yoo xam ne nangu nañ consommer local mais franche bi nga xam ne nanguwuñ consommer local ñu foog nga tegal leen ay argument yu mel ni la nutrition mais gis nga suñu dugub ji ni mu mel mm. gis nga suñu foño bi ni mu mel gis nga suñu suñu suñu ñebbe bi ni mu mel en matière nutritive ba nga xam ne population bi dañ koy approprié wu mais loo xamul doo ci dugg mais loolu dafa laaj ñu dooleel ministère du commerce nga xam ne mooy en charge la promotion des produits locaux mm-hmm. chef de l' état amoon na initiative bi ren ne promotion de un mois du consommer local. lu ko ci génne nga foog. mais c'est un slogan en fin de compte quand tu fais le bilan parce que ministère yi nga xam ne ñoo war a accompagner industrie locale nañ ko war a accompagner accompagner l'artisanat la recherche l'agriculture mais il faut defoon nañ ko waroon defee ñu ko doon par exemple sensibilisation bi dana gën a dugg ci population mais ministère de commerce moo ko porté ba jusqu'à la fin mm-hmm. donc bu mu nekkati moom slogan pandémie bi war nañu yee ba nga xam ne ñuy dundee li ñuy fayee mm-hmm. non réglementation bi am si yenn secteurs yi tamit nan lañu mën a def ba saafaraal ko euh, réglementation bi am si yenn secteurs yi mooy réglementation moom lan on fait les textes mais on les applique tey jii mun naa la wax texte boo xam ne mais dañ ko jël bu fekkoon ne appliqué nañ ko mais kon lu bëri lu bëri dafay saafaru mooy ban mooy l'affichage des prix dans les boutiques tey jii boo duggee ci biti bu fekkee ne prix bi ñu sañ a jaayee gis nga ko kenn du la nax mais lu tax ministère du commerce di bàyyi noonu rek ñuy jaay les prix encadrés des produits à la tête du client loolu jooytu nañ ko fu nekk. est-ce que àndu ci commerçant yi tamit ci mbir yooyu. mais on peut se poser la question. et ce serait dommage bu fekkee ne dafa ànd ak ñoom. Momar Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay fay. merci beaucoup.